salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu في كل سير وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر Abdou Karim Mbacké ci bisu màggalu Touba fekk fi jëmm joo xam ne ràññee nañ ko lool buñ ne fu malaat xel dem ci ni mu taxawoo ci réewam wane boppam ba ñu xàmmee ko waaye tey dañ ko fekk ci kër Cheikh Abdou Karim Mbacké fu ñu ngi leen nii ci bisu màggal waa ñu ngi leen di sant di leen fay di leen jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci teew fii Euh, tey ndindi kër sëñ Abdou Karim borom Makaarimal Axlaaq ginnaaw bi nga ci bisu màggal bi gis nañ la nga wala yeggagoo ci moom waaye yaa ngi ci biir kër gi malaat tey ci màggal gi ak doxinam ci réew mi ba tey mu yegg si waaw sëñ Abdou nag euh, borom Makaarimal maa ngi xamante ak moom en kilifa bu yaana maar landing mbayaan mbesaan sekk mooma boole ak moom depuis boobu tamit maag sëñ bi ñu ngi jàppante fasante kóllëre muy sama sëriñ di sama xarit bu may tooñ sax sëñ fuu la may woowee man daanaka bu ma saa yu ma fi ñëwee bu damay taxaw ci bunt bi rek taalibe yi jàpp sama loxo yóbbu ma ci appartement boo xamante ne moom la ma sëñ bi dencal maag ñi ma àndal donc may kontaan ci yëg-yëg boobu nga xamante ne euh, loolu la sëñ bi am ci man sëñ bi daal for na ci man for boo xamante ne euh, fu ma ko natt rek ëpp na fa ci misaal tabaski bi paase sëñ bi moo ma may xaru tabaski donc waaw sëñ Abdou moo ma may xaru tabaski donc xar bi sax dama koo néega a rey <laughs> donc mu ngi kër ga ma teg parce que vraiment lu fooroon la ci man lu ma xaarul woon la dama fi ñëw avant tabaski di ko siyaare si mu jël ab gàtt jox ma donc may jaajëfal sëñ bi bu baax a baax di kontaan ci moom euh, saa yu ma fi ñëwee mbégte laa fiy jële saa yu ma fi ànd ak samay xarit mbégte lañ fiy jële donc ma koy ñaanal mu yàgg fi te wér waaw ginnaaw ci loolu dégg nañu nga tudd kilifa tey àndoo leen ci bisu màggal gi ñàkk ànd boobu nan la la def tey ci ñàkk te waaw waaw di xam ni rek euh, fu waay ne mën na faa màggale di xam ni doole bi mu am moom fi mu nekk mi ngi fay màggale jàmbaar ju mag a mag foofu di màggal ndax màggal Serigne Touba dafa ne fu waay ne mën na ko a xam xam naa ni bu ay màggal jote walla bu ay alxamis jote naka la góor yàlla di góorgóorloo ah, di sant di sikkër donc euh, kilifa jàmbaar ju mag la donc euh, waaw ah, jàng alquran jàng xasida jàng salaatu ala nabi comme ni ko sëñ bi waxee léegi léegi wax wax mbiri kilifa mooy kilifa fi mu nekk mi fay màggal di fa sant bu baax a baax di nangu ni effectivement suñu borom bu la tegee nattu boo ko muñee da ngay naatu waaw. kon tey fu lan la mën a soññ mbokki taalibe yi màggal si ak seen doxin pour ñu xam ne màggal gi bisu cant la. waaw sëñ bi ah, ah, jarul jalaw jalawi lan la wax nee na tey la laaj ak dal. donc nag te taalibe nag dafa war a jëfe ndigal bàyyi tere. loolu daal ngay conseillé gars yi. ñu ngi lay jaajëfal. ak asa. Badara borom Makari manax la ku ko xam xàmmee ko ci kër Cheikh Abdoul Karim Mbacké ca Pikine golf PA yi Géejawaay ba tey fii bi Cheikh Abdoul Karim di wax naan mosi leen alaaji jamono dina ñëw mu jafe nu boobu alaaji Baara yëgagul ni dina doon sëriñ Bamba waaye bi kër gi nuppee ba ca Aliya njëkk ko ñetti fan lañ ko jébbal ci Abidjan. Alaaji Baar di Serigne Touba Alioune Badara ak Cheikh Abdou Karim Mbacké tey ci bés bi. waaw noo ngi siyaar bu baax a baax di siyaar Dakar instant di leen siyaar yéen dama leen di bàyyi xel euh, di wax ni euh, wax nga ma baat bu ma neex Cheikh Abdou Karim Mbacké Falil moo ñu yar bi nekkee xale bi moo ñu daan tuddloo yàlla golof golf boobu xale la kon bu noonu mel daan moom ndax li ma nuyoo noonu noonu laa la fayee <laughs> waaw boo gisee ma wax loolu Touba jëf jël ku ne déggoon na ko fa. Murit Mbay jiite leen Alsaan Joola Daabo Aline jàllo Cheikh Ibra Paf Fay ñëpp newoon fa ñu newoon ca biir daayira ba ca golf di la gis ngay tudd yàlla ñuy def sak sax ba di daje moo tax ñu ñëwee la noonu see Abdou Karim ci defar gi ñuy defaree doomu aadama yi ca tàngalam yam daan joxe. waaw loolu tax ñu ñeme Cheikh Abdou Karim Mbacke Falilou moo ñu moo ñu dimbali kii yàlla na fi yàgg tamit kii lépp moom Cheikh Abdou Karim Mbacke Falilou ku koy sagoo dalaa sagal te ñun daf noo sagal moo tax ñu koy sagoo kon ni nga koy ñaan Mbàkke Balla yow nag li nga wax danga ko fekk te police maa fekk la bëgg lii ngay wax loo xam la man bi nga waxee rek laa xam li ngay wax xam nga ko da nga xam nag Alioune Badara mi ngi ñëw ndax génn lu bees tàq ci màggal gi waaye ci sëñ Abdou Karim Mbàkke Falilu waaw tuddee ko Baye Abdoul Karim yaay borom makaarim la ak axlaa yaay borom yërmande moom lañ génn ci ci ci màggal gi waay ko tuuti waaye taala albaatu dama daan gis ñu ko daan booleeg ay tuuti tabala waaye créé ko sikar ko ak xiin noonu ba ñëpp déggoon ko taala albaatu façon boobu inspiration boobu noonu laa bëgg xam man parce que lu ma yàgg denc la pour laaj la ko jërëjëf laaj nga ma laaj ba am solo lépp sëriñ bi la lépp Cheikh Abdoul Karim Mbacke Falil la nee naa la li nekk sama bopp gisaguma ingénieur bu ko mën a exploiter bind naa six seize titres laa bind benn moo ci génn gum Cheikh ba Karim Mbacké Falilou ci ci màggal bi une semaine la am nga xool internet bi mi koy toj ah, une semaine la am boo duggee ci internet mi nga xam kii lu ko waay lu ko waay way day dem barke Sëñ Touba Mbacké Falilou waaye 15 titres yi ñu ngi ñëw bientôt bu ma jugee màggal yeneen titres yi de de de waaw léegi man damaa bëgg nga cofal ma ci Talla Albatu rek ñam ci lu bees li parce que man loolu il faut que ñu waxtaan ci waxtaan bu yaatu. bay naan bi bala nga faatoo eh, illallaahi faal du rasul loolu laa way talaal boobu waaye lii ma wayaat sëñ Abdou Karim bay abdul karim yaay borom makaarimal axlaa yaay borom yërmande Sénégal bay abdul karim Cheikh Abdul Karim réew maa ñaanal bal ma dee Cheikh Abdoulaat gërëm na la bay Karim Fall Serigne Saliwo gërëm na bay Karim Fall Cheikh Abdoulaat gërëm na bay Karim Fall Serigne bay Abib Fall Karim loolu daal laa ko waay. fi kulli sahrin wa fi safar.